jëf ci ànd bi ak télévision Mafatihul Bichri mbokkee xarit yi nuyu nañu leen di leen ziar te di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen wax rek ngeen dal ak jàmm ci xibaar yi ci gàttal léegi léegi lay doon. comme ma leen ko junjee nag mbokk yi ak xarit yi rek dañu koy doore ak ponk ba nga xamante ni moo gën a fës soxal maanaam coowal ki nga xam ne mooy Barthélémy Dias ni ki tey nag mu doon jàkkaarloo rek ak ki nga xamante ni mooy procureur de la république ci noonee nak le procureur de la république rek daal di jël dogal rek daal di xamle ni maanaam kii di Barthélémy Dias mën nañoo gàll ci doom li nga xam ne mooy ñaari atu kaso ginnaaw nag la nga xam ne rek mooy kàddu yu ñaaw jëmale ko ci magistrat yi waaye it la nga xamante rek jot na ko woote maanaam képp ku nga xamante ni rek doomu aadama nga war nga mën a génn daal di amal la nga xamante ni mooy mobilisation ci mbeddum Sénégal yile noonee nag la ñu ko xamle ni ki tey nag ci fàttali rek ñuy wax ki nga xam ne nag mooy Barthélémy Dias la indi bile coow rek ni ki tey muy jàkkaarloo ki nga xam ne mooy euh, procureur de la république mooy ni maanaam dafa yëy yàbbi ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci président de la république monsieur Macky Sall waaye ki nga xamante ni ñooy magistrat yi ñu daal di wax nag ci leneen ñeel la nga xam ne rek mooy benn accident bu am niki tey ci suba te ñaari nit rek daal di cay ñàkk seen bakkan waaye it juróom-ñaari nit it daal di cay am ay gaañu gaañu yu métti métti te nag la ko sabab mooy ñaari oto yu nga xamante ni ñoo daje rek niki tey ci suba foofee ca village bu Nawel nekk ci département bu mbir ki Mbirkilane nekk foofu ca Kaffrine ñuy le nag loolu mi ngi am tey ci suba teel rek foofu ca route nationale ba nga xamante ni moo ca région bu Kaolack daal di jóge foofu ca Kaffrine suñu sukkandikoo ba tey ci xibaar yi nga xamante ni jot nañu ko taatan lu xam le mooy euh, benn camion rek moo daal di dal ci benn bu doon jóge foofu ca Kaolack daal dal ci benn oto 4 x bu nga xamante ni ma nga yaboon la xam ne nag mooy ay jën jóge woon na ca marché bu Kaffrine doon dem foofee nga xamante ni mooy mbirki laan ñuy xam le nag ña nga xamante ni rek dañu ñàkk seen bakkan jot na leen a yóbbu ca morgue bu Kaffrine waaye it euh, ñuy xamle foofee nga xamante xamante ni fa la ba am doon na fu nga xamante ni nemmeeku nañ fa ay accident yu bëree bëri niki démb rek gis nañu ni ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Wilane di maire bu commune bu Kaffrine jot na fa am benn accident ba ñàkk rek ka nga xamante ni mooy chauffeur ba tey ci wàllum tënku xibaar dañuy wax lu ñeel la nga xamante ni mooy wér gi yaram li nga xam ne kii nga xamante ni moom la ñu dénk lu ñeel pharmacie nationale d'approvisionnement fii ci Sénégal ñu gën ko xam ci ANET moom nag la mu xam la rek ni ki démb ci am ndaje ba ñu amaloon mooy lu toll ci téeméer ci ay garab fii ci Sénégal di fi di fi nekk juróom-ñeent ak juróom ca bitim réew la ñu koy daal di ute xayma ba nag daal di joxe la nga xamante ni mooy fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards ci sunuy ak koppar moom la ñu ciy def diggante atum 2017 suñu sukkandikoo sax nag ci moom ba tey ci pour cent yooyu ma ngay xamle ci téeméer boo jël rek ñeent fukk ak juróom-ñaar ñu ngi ko jël rek daal di koy jagleel programme yi nga xamante ni moo ñeel wàll gu wér gi yaram xayma ba di joxe benn milliard bu topp genn wàll ci sunu ay koppar ñu cay jënd la nga xamante ni mooy ay garab ñeel maanaam ñi nga xamante ni dañu jabet waaye it ñeel ñi nga xamante ni dañu am feebar bi ñuy wax tuberculose ak ak yu ni mel bu ñu sukkandikoo ba tey sax nag ci moom yooyu le kàddu mu ngi ko yëy yàbbi ci benn déjeuner de presse bu ñu doon amal ak ñu nga xamante ni dañu fare ci kuréel bu ñuy wax association des journalistes en santé ak euh, doon waxtaane nag benn ponk boo am solo ñeel la nga xam ne mooy réglementation du médicament et le secteur de la pharmacie o Sénégal moom ba tey sax nag yemul foofu la mu xamle mooy jamono ji ñu taxaw tembe fii ci Sénégal bu ñu gisee rek ni secteur pharmacie locale bi dafa taga tembe mooy maanaam lépp lu ñeel maanaam li nga xamante ni mooy appel d'offre garab yi ak lépp lu nga xamante ni këyit la ak wàllum technique rek moo am ay jafe-jafe fii loolu nag moo indi ay jafe-jafe xamante ni mooy médicament sur le marché. ñu daal di desandi nag ba tey ci wàllum wér-gu-yaram ndax nag jamono ji ñu taxaw tembe rek la ñu xamle mooy garab bi ñuy wax streptokinase dafa nekk garab bu nga xamante ni dafa manqué te ña ko soxla nag mooy maanaam ñi nga xamante ni dañu am feebaru xol ci noonee nag la ki nga xamante ni mooy jëwriñ bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram ñu gën ko xam ci Abdoulaye Diouf Sarr daal di cay yëy yàbbi nag daal di ne doon na lu nga xamante ni mënu ko dégg te mënu mënu ko nangu moo tax sax nag mu daal di jox ndigal ki nga xamante ni moo yor lu ni mel ngir mu daal di cay taxaw temb rek ba nga xamante ni képp ku nga xam ne yaa ngi am feebar boobu ñuy wax feebaru xol ngir ñu mën la jox maanaam garab yi ba nga mën a wéyal sa vie ci jàmm ak salaama ñu daal di wax nag ci leneen na ñeel maanaam xëy mi nga xamante ni dafa xaw a soxe fii ci mim réew daal di wax ci programme bi ñu tuddee développement de l'emploi au Sénégal maanaam tekki fii ci mim réew mu nekk kuréel bu nga xamante ni nag dañu leen a jox lu tool ci ñaar fukk ak juróom benn milliard ci sunu ay koppar te ki leen ko jébbal nag di fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique gi rek daal di xool naka la ñu jàppalee ndaw yi ci wàllum formation waaye it naka la ñu leen di jàppale ci wàllum insertion professionnelle exceptionnel la ci noonu nee xam xamle nag jël nañu lu tool ci junni ak ñu junni ak ñeenti téeméeri ndaw yoo xam ne fas yéene nañu leen a taxaw ci loole nag la ñoo xam ne sax ku kuréel bi ñu ngi ko tegoon ci at miinu weesu ren ji daal la def ñaari at it daañu ci gunge lu toll ci ñaar téeméer ak juróom fukk ci ay entreprise boole ci nag nekk ñeenti téeméeri ndaw yi nga xamante ni ñoom la ñu nar a dimbali ñu xam le rek nag dina bokk ci dëkk bi di Ziguinchor Sédhiou Kolda waaye it Louga Saint-Louis Podor ak Tamba waaye it ba jàpp Matam xibaar bu nga xamante ni rek bokk na ca waxtaan ba nga xamante ni doon nañu ko amal niki démb ci seen ñetteeli session bi nga xam ne moom la ñu doon amal ngir xool rek naka la ñuy def ba taxawu ndaw yi ngir ñu am ab xëy fii ci mim réew noonee la ñu fàttalee nag maanaam programme bi ci ban diir lañ ko nar a amal nag ñuy xam le muy ab programme bu nga xamante ni ci ñeenti at lañu ko teg fas yéene renforcer lu nga xamante ni mooy ñàkkam xëy mi waaye it fexe ba woowaat ndaw ñi ca la nga xam ne mooy formation ak insertion professionnel waaye it daal di yàbbi maanaam njariñ bi nga xam ne Sénégal am na ko ak comme gi nga xamante moo nekk fii ci mim réew ngir ñu xëcc ndaw yi rek ñu mën ci sukkandiku ba daal di am la nga xamante ni rek mooy ab daal daal di am la nga xamante ni mooy xëy waaye it daal di dàq maanaam ndaw yi nga xamante ni rek dañu jóge fii ci Sénégal di dem ci bitim réew ngir daal di fay uti la nga xamante ni mooy daal di xëy ngir rek ndar képp nag tënku xibaar yi dañuy daal di dem foofu ca République démocratique bu Congo ci jafe-jafe yi nga xamante ni rek mu ngi koy dund ak ONU ñeel maanaam taxawaay ba nga xamante ni moom la ñu bëgg a taxaw jëmale ko ci dëkk boobu di république démocratique bu Congo soxal maanaam conférence bu fukki fan ak ñett ci weeru avril bi nga xamante ni ci la ñu nekk ngir rek daal di leen di jébbal lu toll ci benn milliard bu topp juróom-ñaar de dollars ngir taxaw leen ci maanaam crise humanitaire bi nga xamante ni nag ñu ngi koy dund lakka sa sabab rek mooy daal di taxaw ngir dimbali leen waaye noonee la am benn jafe-jafe ci diggante ONU ak dëkk boobu. daal di génn Chassa ñoom nag ñu taxaw temb rek ni du ñu bokk ci boobi de conférence ndax lépp lu ñeel maanaam crise humanitaire ba nga xamante ni moo am ci seen dëkk rek ñoom daan ko taxaw ba na nga xamante ni rek moo leen war ngir ñu mën a dimbali seen askan ak lu ni mel la mbokki xarit yi nag li nga xamante ni rek moom la ñu leen dégtal moo buur tënku xibaar yi di leen wax jërë ngeen jëf waaye it di leen wax ngeen wéy di teewlu seen télévision Mafatihul Bichri ndax nag nes kiis nañu leen dégtal la nga xamante ni rek mooy journal météo maanaam xibaar yi nga xam xamante ni moo ñeel wàllum jaww ji di ko jaajëfal moom Abdoulaye Sow mi nekkoon ci caméra bi waaye it di can bu baax a baax ka nga xamante ni mooy Serigne Mor Niang mu nekkoon ci régie bi di leen wax jërë ngeen jëf te di leen jox daje ni ki ëllëg ci yeneen i jotaay xibaar أحببت رب العالمين ما لم

lam yanhuni اليوم في الهوى